Basumo Basumo Mbere aujourd'hui dans une vidéo très rapide très rapide parce que des fois on a l'impression que c'est Macky qui ne veut pas écouter ou c'est sa famille ou ses apôtres qui ne veulent pas écouter d'abord je commence par un cas très très très sérieux les gars au Tchad avec le petit débit que la France a installé, là, il y a des génocides actuellement. Ils sont en train de tuer les opposants. Une seule journée, 26 morts. C'est très, très, très, très grave. Sénégalais, réfléchissez et réveillez-vous et il est temps de combattre. Avant que le syndrome tchadien n'atteigne le Sénégal à travers le général Moussa Fall. Savez-vous qu'au Nigeria, les hausses sont très, très, très remontés contre le président Macky Sall au Nigeria. Tous les hausses sont remontés. commencé débat ils m'ont contacté Côte d'Ivoire ils me demandent papa peuple de Dakar qu'est-ce qu'ils font Il y en a même qui me posent des questions qui me disent que papa est-ce que ce que tu disais est-ce que ce que tu disais ce que tu nous c'est pas vrai est-ce que Ziguinchor fait partie réellement du Sénégal Donc vous, peuple sénégalais, je vous ai toujours conseillé ça, vous la jeunesse. roy dafa am roy nit roy raw romb ni vidéo vous dara France bu leen dara bett ñoom ñëpp a koy appuyer bu dara bett bu réew mi tàkkee bu dara bett Ziguinchor toujours Ziguinchor rek ndeysaan Casamance tey yéen Pastef xam nga tas nañu MFDC dugal ko def ko ba def ko partie régionaliste mais PA mooy Pastef tey ma waxati pas il était 10 000 fois plus radical que Sonko. Parce que moi, je suis venu à l'arme anti-tech. Je suis venu à l'arme anti-tech. Je suis venu à l'arme anti-tech. Ablaï Bachili m'a aidé. Il est en train de vivre. Ablaï Bachili, il peut me témoigner. Euh, ils étaient 10 000 fois plus radical que Ousmane Sonko. 10 000 fois, je vous dis ana tey dit bi ñi fi bi tous les grands révolutionnaires il est à l'image de Ousmane Sonko têtu terrible vieux Majmoun Diop sénégalais mu jéew ñu comprendre parce qu'il s'est renfermé sur lui-même parce que xam na les sénégalais ne vont pas le comprendre mais yàgg na wax si l'heure de la révolution va sonner si l'heure de la révolution sonnera ça sera quelqu'un ou personne Personne, je dis, personne. Ni l'armée, ni la police, ni la gendarmerie ne feront rien qui va le décourager, rien du tout. Ça, Majmoun Diop le disait toujours. Mais ne la révolution attaquée, qui est yilif, ken du ko mën a encore..? kenn que dul yàlla suñu borom ndax lolu Cheikh Anta Diop da le ko waxoon ñom. Tay, histoire bobu tay mo ñëw ba vous ñu leen ne Casamance né leen MFDC yéen ñep daw pourtant MFDC parti politique le comme un parti politique le comme parti politique le comme PDS parti politique le nee naa leen ñoom 1947 Le MFDC am MFDC am avant indépendance Sénégal mouvement le MFDC xam nga le mouvement des forces démocratiques de la Casamance MFDC nekku pas ay affaire guerre non c'est pas MFDC c'est archi faux ce qu'on vous a révélé xam nga ñi di di fecc di fo xam 1983 ils leen tirer ay ñu leen guerre militaire c'est archi faux c'est archi faux mais tay Sonko a révélé l'histoire 40 ans après vous la jeunesse vous êtes devant l'histoire Nous tax ñun dañuy wax suñu appartenance wax ban philosophie liñ duggé ci yenn wax ban philosophie lañ leen accompagner MFDC comment ñu MFDC MFDC dafay ñëw réclamer l'indépendance le MFDC a ak Léopold Sédar Senghor MFDF, ak BDS ñoom ñoo gagné Lamine Gueye Senghor le président du Sénégal en 1960 donc si on vous dit que nous, c'est des rebelles ils veulent la guerre ils font ça ils font ça c'est archi faux Je suis day pas li wax démb yëpp ñun xam nañ lan wax vidéo ne leen Moussa Fall lal na kaddu gi démb bi Sonko génnee dafa découragé mais démb dañu organiser waat benen réunion man yëpp naa ko tey suba mais dama leen jéppi moment dama leen jéppi quoi dama leen jéppi sincèrement parce que en tant que des autorités de la république djité ñun suñu Sénégal djité suñu réew Amadou Sall moy tok di joxe ay directives man dal man daal je ne comprends plus man je ne comprends plus sincèrement je ne comprends plus comment des autorités ñun ñu mën leen fal a ngay ministre de la république non mais les ministres c'est des imbéciles c'est des politiciens c'est des politiciens c'est pas grave mais les autorités militaires les autorités de la gendarmerie les autorités de la de la police gars Reculez... tant qu'il est encore temps Madame Diagne Mon tracé deal Depuis le depuis départ maa leen koy wax Madiambal Le tracé deal bi reylu ñoom filber pour nous coller ko Sonko ça n'a pas passé waa MFDC lañ ko bëggoon jiiñ armée ne leen hee bu leen ñu diwloo munu leen ko fekk doo leen mën a MFDC dañuy ñëw dakaar bu biir Jal Diop yéen nee naa leen boobu am na ay enquête approfondie yu am si mooru Fulbert Sambou di jabaaji loolu mooy taal armée nationale kañ ngeen gëj a gis officier de l'armée dem dem ci troupe yi ñu naan leen officier yaa ngi ci biir troupe yi temps yi passé am na benn colonel bu booy naroon toj lu bonam biir couleur bu daw xam nga rek bëgguñu dugg ci affaire armée bi mais moment yi armée xale yi les jeunes yet naa la boo leen yaakaaree na ñoom Macky Sall la ñu mere Macky Sall la soxla soxlaa ñu Macky Sall autorité militaire yi ngeen di gis gis nga bés bu dëkk bi tàkkee autorité militaire yi booy nañ leen nokk ci kaso bi ñenn ñi dañ leen rey xam na bu baax fu may waxe waxantuwuma Moussa Fall Amadou Sall forcé na la non ñoo ne leen MFDC ñu ngi Ziguinchor foog ngeen xeex tiré ci kaw xalé yi defaat carnage bu Abdou Diouf defone mais nak fi loolu ça ne peut plus passer ça ne peut plus passer billahi ça ne va pas passer gis ngeen tay suñu xalé jël nañ tek seeni sa kusuf parce que dañu judd fekk ko kon mo lay ñom ñom si guerre lañ juddo dañ leen ser yar yu mag ci tay jël nañ tek seen sa kusuf nga xam nañu Moussa Fall li préparer <coughs> dor leen ay bal pour jël duggu jëli Sonko Ziguinchor suba la vendredi non xale yi li ma leen waxoon laa leen di waxaat waxuma leen sax politicien xam nga suba am na ñu war a ñëw négocier ci ak ak Ousmane dugg si Casamance. eh bu kenn yegg këram xale yi bu kenn yegg këram sëriñ si maa ngi leen di ko wax di ko waxaat depuis six mois maa ngi koy répété bu Sonko tegee candidature am. ñoom ñëpp aju caw di jeex tàkk ndax ñoom jàpp nañ ne Sonko xale la ak ñoragul ak ñor la loolu seen yoon nekku ci sëñ bas Abdou Khadre Sonko la mag kon gënoo ko ñor yaa ngi nii di jiite nekk porte parole suñu magu murit yëpp di toog si ngay toog ci kaw di wañar wañar yi kon gënoo ko ñor ay kuy jiite réew mi dangay bàyyi mu sedd ak fen buy defar gën dëgg buy yàq war te mën jiite maa bañ je refuse maa bañ gars yi kilifa diina jéeg ñëpp bëgg nañ négocier ak saa waay de mais négociation bi xam ngeen mooy la naan bu Sonko présenté wu. wala boog na bàyyi gars yi dem transition moom mu retiré candidature am même buñ koy takkal si procès yi moom mu accepté ko bàyyi retiré candidature am. waa léegi bu Sonko retiré candidature am yéen 7 millions de jeunes 8 millions de jeunes yi topp ci Sonko tey yéen foo leen jëm. sëriñ si ñu ngi xalaat taalibe yi leen di jox addiya est-ce que yéen jeunesse bi yéen ñi di joxe addiya est-ce que gars yi ñu ngi leen di xalaat ñun ñi di ñàq di liggéey yéen ñi di ñàq di liggéey di yónnee addiya est-ce que gars yaa ngi leen xalaat te dëgg bi si addiya yi buñ ko waxee ngeen foog ni dañuy xeex kër sëriñ si déedéet xeexuñu kër sëriñ si sëñ Bamba lim fi bàyyi borom xam-xam du ko bàyyi. maam Maodo li mu fi bàyyi borom xam-xam du ko bàyyi ñu bàyyi bekkaay te mu nelaw nii temps yëpp maa ngi si bëgg a wax. bekkaay man seeti naa ko dem ba Ndiassane yéen xam ngeen fi Ndiassane bekkaay kuntiw cheikh bu mooy kan borom as buuna laaw ni mal wakil nig mal mawlaa wa nig mal nasir ci la toog. Cheikh Bou mooy koo xam ne Ndiassane bu ñu la fa suulee 7 kilomètres bu nekk bu ñu la fa suulee sa yaram araamal na safara kooku mu ngi Ndiassane damay wax tey. Baye Bakaay man seeti naa ko maax maama di te ñu dëkk Tëngéej ñoo fa àndoon Baye Bakaay dama ko xam xam baatin bu nekk si moom xam li nekk si Baye Bakaay moo tax ma ne leen Sénégal yéen jeunesse bi boo leen déggoon rek. boo leen déggoon yéen ñëpp jege yonent livre mag ñëpp boo leen ko jàppoon gis nga livre mag ñëpp boo leen ko jàppoon jàpp livre mag ñëpp di ngeen am loo xam ne xamu leen ko mais c'est dommage kii danaan murit laa cag fii kii ne tijaan cag fii kii ne laayeen cag fii guleet senegal dajaloo doon benn mooy autour de Ousmane Sonko moo tax Sonko mënul neex kilifa yoo xam ne dañuy dund ci isem bi mënut a nekk. Baye Beka yàlla na la yàlla yërëm. yàlla na suuf sa kaw lën na may bàmmeel xataay bàmmeel wéetaay bammel nag mënut a ñàkk kenn fan bu njëkk mënut a nekk ñun Casamance si loolu la ñu initié xale yi dinañ la wéetloo biir àll ba nga xam ne ëllëg sa bàmmeel war nga wéet kon boo ragalee dee da nga ñàkk fayda ñun fan la war a dundee ba ngeen war a ragal dee nii Yen wa Dakar ñepp di wax ken sañu génn manifester Macky Sall day ray lan moo tax ngeen wala ragal dee te dañu dé génn suñu biiru yaay yalla joxat ñu ru ñu wara a deewaat dellu kon fële lañu dundé pa fi fi dañ fi ñew pour mission ay opération lañ fi ñewé ku nekk day matal sa opération chaque cent ans ñu am ben opération gañu ñu firi awna ak seytane toujours man leen adana ñaar la peuple ñaar ñoo kay formé ñi bëgg a bon mooy ñi bëgg a dundee intérêt réew mi paa ñuy dundal réew mi ñuy dundee intérêt réew mi ñuy dundee ñaqu réew mi ñuy dundee deretu réew mi te du ñu ñaq ñi bëgg a baax mooy ñoo xam ne ñu bëgg réew mi ñëpp tolloo bu ñu xëyee am lu ñu jox seen njaboot même bu dee mille francs par jour même bu dee 4500 francs par jour Sénégal war nañ toll foofu l'Afrique est pauvre c'est archi faux si l'Afrique était pauvre la France ne va pas s'appuyer sur l'Afrique pour se développer la France n'a pas de diamants, ni de pétrole ni d'or ni de gaz la France n'a absolument rien du tout pourquoi on vous traite de pauvre vous êtes tous pauvres Nous sommes tous loolu gens. fii ñuy ñibbi mooy dëgg moo tax ku fi nekk fii xeex dëgg dangay ngay wóolu sa bopp ku fi nekk fii di xeex dëgg dangay ngay wóolu sa bopp. tey tollu nañ foo xam ne moment bi ku reculer ñàkk Sonko bu reculer ñàkk Sonko bu arrière ñàkk te nekkul Sonkoy arrière set millions de jeunes bu deux a arrière ngeen ñàkk combat bi. Nous sommes ci phase décisive... décisif suba la dernière négociation avec Ousmane Sonko def bloc pour nous ak jeunesse bi Ousmane Sonko bu len ragal dara gendarmerie Amna colonel yo ne ñu li doome xaram di nango. Amna ño xam dina xam police Cheikh Yag yéen la jeunesse insistez pour manifester on va voir ce qui va se passer code ne mënul wax yeb ci internet ken mënul wax yeb ci live code légui ñew ci procès le 23 bi un sama groupe dala bettu len ndax ma jàmmal affaire limu wax dem yeb wax nañ ko mois de juin 2022 si la bëggoon empoisonné Sonko moy biñ ko vidéo wowe piège ko ba paré yéen ñi daan suivre samay vidéo suivre ngeen jour bobu jour bobu lañ ko étouffé mu génn di wax c'était trop tard mom mo bëggoon empoisonné Sonko affaire bi depp Cheikh yirim Seck ñom ñep jox nañ leen seen enveloppe pour ñu préparer dougal Sonko MFDC légui procès bi lañ jëm gars procès bi tournure yi dina bëri procès bi buñ ko taxawé sans Sonko buñ ko taxawé sans Sonko bu nango ay avocatam taxaw aji sar day ñak bu Sonko taxawé aji sar day ñak loolu mom luma leer la leni wax ñom défar nañu seeni film défar nañu seeni vidéo te billahi ay lu gars yi yor preuve yu Sonko yor ñom procès spécial lañ ko bëgg a yóbbu le 23 dinañ ko reporter waat pour yóbbu ko waat procès public ñëpp ñëw tok Adji sar buñ ko bayé mu def résumé ba paré gis nga ci résumé bi muy def mom la lañ wax ci résumé bi muy def bu avocat yi mom wax waxuloo ko moom 15 minutes 20 mu puub tuwéyam ci résumé bi lay commencer di fen xam naa lu may wax waxantuwuma état d'esprit peese nañ ko ba pare. pour lan ñuy reporter procès bi le 23 avocat Sonko yi dina am ñeneen ñuy ñëw constitué wu. kon déjà dossier 471 pages kenn du ko bâcler affaire de criminel la. gars yi procès bi procès bi duma leen nëbb de. bëggon na Sonko dem lol ci procès bi mais Sonko dem du avantage guide, gars bus de Sonko bëss bu génné Dakar ñew né day dem ci procès bi du mossa yegg tribunal guide yi dinañ ko wat tëj ko pour lu dul procès bi nak xam nañ ne Adji sar du tenir procès bi ndekete gaay procès bi du sen objectif de eh eta <laughs> ñoy bandi <laughs> jot ndey sama gaay ñoy ay bandi sama gaay ñoy bandi gaay paré nensen nañ sen benen PV wu cocktail molotov yeeg

waaw ma avertir leen léegi depuis suba nag kilifa yu bëri ñu ngi may bab naan ma non Sonko Dakar foog mu dem ci procès bi loolooy sécurité am parce que Ziguinchor mooy sécurité défense am mais sur le plan juridique Dakar mooy défense am parce que lan procès bi da koy démbalee parce que buñ ko jugé par contumace buñ ko jugé par contumace mën nañ ko condamné à cinq ans de prison

toj yëpp wàcceewaat pont yëpp yéen ngeen liggéeyaat mais ñun benen maire du fa tok bu Ousmane Sonko te gis ngeen tali commencé nañ ko gas gaa léegi boy programme tay bu xew waxna naa leen ko démb vous avez déjà installé les sacs comme que nak ñom tiaxanu tuñu ils vont passer à la vitesse supérieure léegi nak il faut creuser des tranchées lance-pierre creuser leen sen tranchées yu bax ak suuf si

pour d'accord ñeu taxaw ci procès bi te man procès bi man ce qui est sûr et certain bu fekkee Macky Sall amoon na source yu sûr ne day baye procès bi déroulé wu. normalement ñom lu leen mënti andi nañ tek sen 471 pages grawul Adji Sarr bu ko nexé wax 5 jours grawul xamna né bu Sonko joggé wax. vidéo Adji Sarr yi génn vidéo Ousmane Sonko yi génn su boobaa yéen askan bi journaliste daame xaram yi fay toog si boppam dinañu xam fan la dëgg féete man moo tax projet bi ragalum ko ndax ñun ba kanam yi jaar ci koñ nga doon jël si Adji Sarr ñoom Sidi Mouhamed Mbaye ak chauffeur yi ko jël seeg boucher beeg ñëpp gaa yi booy ñoom mercredi doon ñu ngeen seen preuve yëpp ne teg Adji Sarr di calli calli rek Adji Sarr Sweet Beauté Ndeye Khady Ndiaye dafa amoon caméra Adji Sarr

damay ragal gendarme yooyu ak policier yooyu doon xeex si bunt bi ndax Adji saar kan moo koy dugal ko du dugal damay ragal ñoom ñoonu ñooyu njëkk dugg ci procès bi dóor nday Adji Sarr bal ak ñoom Maître El Hadji Diouf soo leen ma weddee nañ leen dem procès bi bu amee crime yuy am ci borom arme lay jógee dem leen xool ñiy seet baatin di ngeen xam ñan ñooy def toj-toj après dootul nekk ñun patriotes yi dootuñu def toj-toj te lu ma si metti militaire wala policier bu fi def toj-toj ñu ne la patriote nga déedéet La am ñoo xam ne injustice la ñuy bañ ak être patriote c'est pas la même chose l'injustice man maa ni man injustice lay bañ suma ma tok toog ne MFDC la bokk mais injustice lay bañ sama élèves dem len dangal toujours rester toujours digne et patriote lolu dem len dem leen Gossas depuis 2003 dañ ko bind ci miir yëpp restons toujours digne et patriotes depuis 2003 sama élève def Ndefleng mën nañ ma sédé sama élèves yi nekk dans l'armée mën nañ ma sédé ni nekk dans la gendarmerie man lolu je me devise restons toujours dignes et patriotes loolu laa mos a instauré samay élèves ce patriotisme là ce nationalisme là c'est sudiste léegi tey politiciens yi wër leen kan moo ñeme tey wax si mortel combat bi ku dul Mimi Touré moo taxaw ne mortel combat bi da koy engagé da koy continuer kon moom elle est prête léegi nag man tam dinaa mun wax si moom ndax maax moom ñoo bokk combat waaw bokkuñu si parti bi mais mais dañuy ñëw engagé combat bi wane ne kii moo war jiite malgré ñun suñuy këral yëpp dañ koy enterré ba pare xeex lii ba pare. moo tax patriote bàyyi leen di attardé wu ci ay waxu Madiambal Diagne ak ñooñu yéen vidéo Madiambal Diagne li mu wax démb yëpp yéen ñi di seetaan samay live live nañ ko depuis daaw daaw lañ ko live daaw kon li muy wax nii c'est pas nouveau on laisse passer moom ñitu safara ñit da nga koy seexlu Madiambal Diagne da ngeen koy war sax seexlu di wax. bii suñu lakk le Pape Malik Ndour moko <laughs> directeur bi ci le PDG Moussa Diop amna ci lu lu ko ndax ko ba information Pape Malik Ndour vous êtes mal barré kérok fofu manifestant yi sa xol dégagé wuñu fa chance C'est le directeur en personne qui dem ci bus ay carcasse le bus dañ ko défer ba sonu ko ñu jël seeni dem remplacer ko ci yenen bus yi pour motif bàyyi len affaireu bandi ni ngeen defone 2021 dem tal fele moy jeppal bi nonu si affaireu gaz bu mag bobu ci affaireu automobile bi ñom ñoko talon ñom ñoko talon satch ko ñom ñoy tal ba pare jiñ ko yeen patriote yi léegi nag ñëw ci rassemblement général bu ñu war def pour combattre affaire bi parce que suba ñele di dem yéen zigensor bu ñu dugg gis Sonko léegi ñoom nag seen retour bu ñu amul retour mooy que ne gars xam leen ne ci xeex lañ jëm Moussa Fall déglootul juge ministre de la justice kurti kurti na ay article ba daganal ne moom mën na andi Ousmane Sonko Amadou Sall fëgg si table bi la def ba menacé leen ne leen xanaa yéen doo leen ay góor moo tax ngeen gis ay journalistes commencé jëfuru naan force de l'ordre lii force de l'ordre yi parce que ñoom ñëpp lañ saaga seen ndey fu mu toll nii dañu encaissé ku encaissé ku ne dañuy saaga seen ndey. léegi nag les problème vont démarrer ndax Sonko ne va répondre à personne sëgam ñoom délégation ñoom Youssou Diop sëñ Bass Abdou Khadir bi ñu toogee ak Macky Sall di ko woo il n'a pas décroché faalewu leen Sonko waratul décroché kenn waratul décroché kenn. ñoom ñëpp lu ñuy wax dafa dëgër bopp dafa dëgër bopp. dafa dëgër bopp boobu moo ko jik ba tey yéen xale yëpp ngeen bëgg ko ndax lan da leen woon dëgg xam nga lan mooy dëgër bopp Sénégal woon xale yi dëgg jàngal leen dëgg wax leen luy ëq jaa al aq wa nigmal baatinu loolu fa ngeen ñeme ko yéen xale yi dëgg nay defar rek dëgg du yàq mukk dëgg day defar day metti lool nag mais day defar li ma leen di ñaan mooy roy leen foofu laa commencé waa Ziguinchor romb leen waa Ziguinchor yéen waa Dakar raw leen waa Ziguinchor ndax si yéen la ñu war a conclure Macky Sall ñun Ziguinchor mën nañ défendre le mais yéen waa Dakar soo fu fi jëleewul Macky Sall ñun waa Ziguinchor mënuñu ko fa jëlee ñun buñ buñ ko fay bëgg a jëlee mën nañ ñu léegi dugalaat si état de siège guerre ak ñun tëj suñu Casamance déjà rek ñu ngi nii suñuy école tëj nañ ko ba le 25 est-ce que yéen waa Dakar seeni école dañ ko tëj ba le 25. yéen waa Dakar yaa ngeen di jàng depuis boobu waa Thiès yaa ngeen di jàng depuis boobu yéen ñëpp est-ce que Casamance ñun suñuy doom ñu ngi jàng 1983 c'était la même chose bi ñu reyee maire yi ba pare dañu assiégé école bi trois mois d'affilée l'histoire se répète saa ngay wax kenn du la comprendre ñu xaar ba temps ñu ñum ñëwaat grand grand mën leen déedéet ñun on a déjà une philosophie en avance parce que buñ ne Casamance rek yéen ñëpp bu ñu traité de rebelle ñëpp ci yam mais tay gis ngeen ne luñu am tay mo gën rebel luñu am tay mo dàq rebel li moy lan la foi la conviction envers les frères ñoom ñuy duggalal ku ne day protéger sa morom comme yow sa deret amna way woy bi ñuy woy tuur sa deret lañ lay wax neexul tour sa deret ngir sa jëmmi morom booboo neex booboo yëfi goor Casamance c'est ça notre philosophie yow nga ñëw ni xéxal sa bop sa suuf bañu jam la neexul mais tey sa moroom di xeex nga ñëw jàpp si tey ba ñu jamat la ah, ah ñun loolu la ñuy wax martyr en Casamance on a des martyrs de vrais martyrs te xale yi tey gis nga ñu ngi war dem communion communion ñu ngi ko toog foofu buntu kër Ousmane la jeunesse éveillez-vous car vous êtes déjà réveillés mais c'est l'éveil qui reste un peu surtout à Dakar xam nañu lu ñu leen def xam nañu fi ñu leen noot nu ñu def ba yëngal xale Casamance dinañ ko def ba yëngal leen yàlla baax na ëpp ñu ñu saayir ëpp ñu ñu baatin xeex bi nag gars yi foog mu wër de depuis démb ñu ngi wax xeex bi foog mu wër il faut ko gagne ce combat il faut qu'on gagne ce combat temps yi ñàng na fu mu toll nii foog ñu gagne combat bi ndax booy Amadou caaxaanatul de booy Amadou caaxaanatul Amadou Sall caaxaanatul laa laa laa il est surtout seen nerf saaga na ndey suñu autorité yi autorité itam buñ ñëwee Casamance dinañ dal suñu kaw suba su Sonko d'accordul préparez-vous d'ici tout ça, creusez vos tranchées et restez en état d'alerte maximum. Sonko je ne vous le cache pas nous ñu ngi koy pour nous ko Dakar pour nous faire le 23, même ses propres avocats nous sont wax ñu ngi koy baab. man mii depuis ci suba wax nañoo ko man si nekk lu ne communication pour venir fexe pour venir. Sonko dem Dakar pour assister procès de moo parce qu'effectivement, effectivement mooy gagné mais non ce n'est pas le moment Nous ko bàyyi moom décision pour li dal xelam te li dal xelam nag xam nga mooy lan li dal xelu jeunesse bi xelu jeunesse bi xam nga lan moo ko dal uuf seen président Sonko muy diriger maireem ñu uuf ko muy def nemmeeku tuuram ñu uuf ko def ko kandidaa ñu uuf ko fal ko président yéen ñi di waxtaan ak man loolu laa leen mun a wax sincèrement man je suis la jeunesse ñun suñu affaire di jàmm yooyu nan ko rafetal battre ko les institutions foog mu wuy institutions yi sama gars yi La jeunesse compte pour moi plus que les institutions parce que c'est la jeunesse-là. C'est la jeunesse-là qui fait les, institutions. L'institution c'est cette jeunesse-là qui fera ces institutions. C'est le peuple qui fait les institutions. Donc, institution. Qu'est-ce que c'est que l'institution Mais l'institution là est incarnée par des humains. Est incarnée par des rêves que nous-mêmes on a enseignés par des élèves que les professeurs ont formés. Donc qu'est-ce que c'est que l'institution C'est incarné par des humains. Et si les humains là ne sont pas équilibrés, donc comment les institutions seront, équilibrées Quand même, il faut qu'on se respecte un peu. La jeunesse, force reste à vous. Hein. C'est vous qui détenez les institutions. C'est vous qui détenez la République. C'est vous qui détenez le drapeau national. C'est vous qui détenez le Sénégal et l'Afrique, c'est vous la jeunesse. Ce qui se passe au Tchad, refusez que ça se passe. La France n'est rien du tout. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, refusez. Au Bénin, Talon a emprisonné tous les opposants et les a écartés. Refusez-moi ça. Ce qui se passe en Guinée, on tue les manifestants, personne ne parle. Refusez. Nous sommes au Sénégal. Nous sommes au Sénégal. Macky Sall du def 3e mandat ndayam du ko def bayem du ko def il ne le fera pas yow Amadou Sall nak je te lance un défi bu dekk bi také sa bir boobu dinañ ko jam péral le touti nga wàññeeku. gars yi adresse doomu Macky bu mu neub mongol bi mu ngi ginnaw Dakar dem dik. cité yoy son yi bu Ndiaye son yi bu Ndiaye tay moo tax Ousmane Sonko ak Macky Sall jote. Mansour Faye mos na ne son yi Ousmane Sonko dafa soxlo Macky Sall da doon doul 2014 bi Macky Sall tejj tëj Souhaïbou Ndiaye Ousmane Sonko si la ñëw di def intervention pour buñu tejj tëj Souhaïbou Ndiaye mu ngi won bureau Mansour Faye tok limay wax luma xam la mosuma si nga dugg mais Souhaïbou Ndiaye tey moo tax Macky ak Ousmane joté jote Souhaïbou Ndiaye mom mom mo mayon tay Macky Sall tay kër ginnaw Dakar dem dik bobu mom këru Mermoz bi tey Souhaïbou Ndiaye moo ko daggal Macky Sall mais bi mu formé APR Amadou Ba ak Matar Cissé nek biir ci biir gouvernement bi di sàcc xaalisu état bi di ko financé soy bu Ndiaye dafa bañoon motax tay bi Macky Sall tay falo mom la ñëk sacrifier dafa vengé wu lolo andi vengeance sam soy bu Ndiaye bi mu bëggee tëj sooy bu mom nak ci lu Ousmane nak fep dem jëm ko ñaan ndek ba sonu Macky Sall bañ Ousmane tam nako ko ayo ya kay téré neex Macky dakk ko rancune motax tay Macky Sall dakk su soy bu Ndiaye rien d'autre kon buñ leen nan ni li leen wax ci Ousmane Sonko regardez di déglu gaay man yenn grand yi gis ngeen damay sax rusa léegi wax seen tur parce que man xam nga rek yaa di see man du ma sax nekk di werante ci page yi comme démb Sonko feeñ na fu mu feeñee biir këram ah xanaa doomu ne day naaw moo tax bi ma jàmbal ne Sonko dafa nëbbatu suufu lalam ma ne ko waaw moom de buy katt jabaru jàmbur yi bu seen jëkkër yi ñëwee dafay nëbbatu seen suufu lal loolu lu ma leer laa ci am benn waa kër ma jàmbal su waxee rek mu tudd tuuru jabaru jàmbur yi ku ci wax rek ma tudd mooy que ñëppay garder seen calme nee naa leen gaañ ngeen ma ba nopi yentam tam di ngeen tëj ndey sen lamine man man may wax dot len wax personne ne va parler man may wax dot len wax la jeunesse tenez debout mama yeena a ñep yeena yéen ñep tiital ñëpp Sonko kese mënul titel kenn militaire yi kese ñu tiital kenn gendarmerie kese mun ñu tiital kenn F24 mënul tiital kenn yewi Askan bi mënul tiital kenn c'est la jeunesse c'est le peuple. Les hommes, les femmes. Vous qui avez compris. De le monnaie Casamance, far ak ñak far. ñëpp pas pour soutenir notre mère. C'est ça la résistance. Maman, il faut que vous dépasser l'affaire du parti. Affaire du PS là, du... man, faut que dépassons ça. Il faut lutter pour une bonne cause. Si nous luttons pour une bonne cause, nous parlons, nous sommes parti, nous sommes sa programme, nous sommes campagne gagnée. foofu la ñuy waxee gars yi moment bi foofu ngeen war toll yéen les jeunes sénégalais s'il vous plaît ngir yàlla lii laay war a suuli yéen xale Sénégal xool sama benn tànk su suuf loolu laa ni ñaan yéen ñëpp moment yi foog ngeen def bloc génnee seen affaire parti yi faites un bloc yéen F24 les jeunes bàyyi leen fa mag yi bàyyi leen li yi faites un bloc yen yeewi askan wi ñu bokk

ñu pere waat seen suuf yëpp di ngeen xam ne suuf lu muy jur dara mënu ko jur si àdduna dara mënu la ko jox si àdduna dara di si gil ndigaal ndeysaan waa Ngor mooy Fatoumata pël Fuuta boobu xoola pël la de yaayam sax déggul wolof ay gendarme dàqee jigéen xale bu jigéen bu am 15 ans ba jàpp ko ba jamate ko foog ne vous êtes des hommes sànq dama seetaan dëj bi en live mais ça m'a trop découragé Je tax yéen boo et policiers gendarmes vous me posez des problèmes vous la jeunesse vous avez trop de sentiments Nous ñun on a dépassé la bataille on a dépassé le combat nous sommes en état de guerre nous sommes en état de guerre la jeunesse est en état de guerre Qu'est-ce que pierre yooyu moo gën a garaaw c'est kalachnikov yi lance-pierre yooyu de gën nervi bu fa dugg Ablaye Diouf pare na de <laughs> borom yamb lay laay félicitation laay Diouf waaw bërki démb waxoon nga ma ko mais booy merci merci beaucoup waaw gara bu defee ñetti fan rek ku fi duggati yam yi tee nga sa ndey waaw félicitation booy félicitation laay sincèrement waaw félicitation 2017 bi nga ma naan saawaay dina jàll gaw ma la woon mais félicitation lay Diouf félicitation sincèrement waaw yax booy maaraañes moom xaw ma nu ma leen di def saa bu ma tiitee ba yuuxu yow moom danga may woo direct mais comme Mara xamaguma ko kot nga ma koy joxee ma dégg ko alhamdulilahi rabbil alamin félicitation gars yi félicitation te bu leen mere Cheikh Bara Ndiaye de Cheikh Bara Ndiaye de li ñu ko wax noonu moom li mu leen wax tey ñun ñëpp loolu la ñuy wax man depuis suba ñu ngi maslaak man mais comme man damay déglu mag ñi ba pare woo sama booy yi ndaw yi sama booy yi nee naa leen dama am encadrement jeune Pablo Medi jaru nga may xool sama encadrement nga bokk yaa ngi di ma seetaan damay xool wax ak booy ay ñoom waaw wax ak sama yenn booy ñoom ñoo ma naan grand non ñun lii mooy suñu idée bu mag ñi lii nekkee seen idée lii boo tax man tam su ma ñëwee su may def live damay tranché ma ne leen lii lañ ñu wax mais lii mooy idéologie booy yi te man si booy laa far bii pas la jeunesse je je vous soutiens à cent pour cent man loo leen bëgg laa bëgg boo leen ni Sonko du dem du dem boo leen ne na dem taxaw ñu xool kan mooy fen bu demee taxaw ku fen ñu rend ndeyam ma ànd yéen tam. Je suis derrière vous, la jeunesse. 100% derrière vous. Et félicitations. Amadou Sall Magoulen, leen ëpp leen doole ëpp leen xam-xam bu naree yëngal dëkk bi fu mu ci bi même bu dee cocktail molotov dóor leen ko ci biir otom mu tàkk ak otom ce qui fait que Bayam dina xam ne moom mu félicitations la jeunesse boo leen ma mënee molotofal gars yi rek seen biir oto yi loolu ben nit sax da def sen politicien bu romb nga molotov nday ci biir auto bi seey combat bi foog mu yegg fofu wan wan yor sa molotov di dox politicien bi romb na nga dugal ko ci biir mu jeex di disparaît mu tàkk jëppeet ñu xam ne caaxaanutu leen fa la combat bi toll gars yi xoola foog ñu nekk en danger ragal a génn billaahi booy foog ngeen sa sadik moment bii molotov leen biir auto politicien yi pour l'instant ni xoola jarul nekk mbooloo politicien day romb nga toj taal dóor ko ci biir oto bi dem sa yoon point final commencé leen taal gars yi ay Pape Malick Ndour ni bii heure nañ tàkk ndeyam maja Diagne démb bi muy ñibi waron ngeen xoola molotov ci suufu auto bi pneu bi tok ngeen dorat ñetti molotov ñaar auto bi tak du am temps wu genn mu décédé safara la jëm bu déwé jeunesse bi yegg leen ngir yalla li bu doon Je yi Diagne bi heure fat nañ ko jël nañ ruwam bu jar ci ils veulent vous assassiner assassiner les soyez plus homme que soyez plus barbare que soyez plus sauvage que soyez plus dur que soyez plus lâche que soyez plus criminel que pour gagner ce combat là Faut ngeen am détermination bi waa Casamance am détermination générale morale et physique. ah mon jeunesse de Dakar billaay ma femme on voit Dakar surtout waa Guédiawaye mais grave, on va gérer l'affaire. affaire mystiquement dinañ ci jóg. félicitations la jeunesse ba si kanam gis nga de damay xëy di bindous comme Djinné. <laughs> jaajëf la jeunesse.